je m'adresse directement à Massaly mu génn wax mel ni kuy yee fitna masali amuloo ñetti nit amuloo ñeenti nit ñu topp sa ginnaaw ngay wax di totoyer di minimiser Sonko loolu rafetul Sonko yemu leen niveau Sonko haut niveau la yàlla moo ko def lii mu nekk nga écarter policiers yi écarter service de l'ordre bi les gendarmes pourquoi ça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 bëgg lu nekk président rek nga jóge fee rek euh, créer sa benn kàr commencé wax gën mais arrêtez quoi arrêtez quoi yéen a yee fitna yi au contraire naxanteele nag population yi naxanteele nag peuple bi let's go Youssou Ndour politique.